démb suñu maam yee ko amoon ba tey ji am na ñi nga xamante ne ñu ngi ko am ba tey ñi nga xamante ne aussi dañuy fàtte ba mel ne ñun ñu fàttali leen rek moo tax tey ci émission savoir vivre euh, dañuy ànd ki nga xamante ne moom mooy suñu ndaanaan bu mag bi suñu papa ji El Hadj ma liggéey kenn dootu ko présenté gannaaw bu ñu ko dalalee ci wuyu si bi ñu wuyu si dañ koy bàyyi rek mu yaatal papa ñàkk sutura bi naka nga ko gisee. Euh, jërëjëf Rokhaya maa ngi nuyuwaat euh, dëgg-dëgg sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sant suñu waajur yu tedd ah ñaanal boroom kër gi aussi yàlla jàppale ko muy alxaaji Bougane Gueye Dany yàlla yokk ko suutura ndax boo nekkee ci teraangay doomu aadama. waaw war nga ñaan teraanga ji mucc. waaw teraanga ji jëm kanam. Mhm. parce que defe naa su amul woon jàmm ñun duñ toog fii. kon moom mi nga xam ne moom la yàlla dogal kër gi jaar ci loxoom. mais moom rek mënu koo liggéey. dëgg mu bokkook ay nit. yàlla na ko yàlla jàppale. jàppale ñu jàppale mbooloo mu jullit alors euh, Rokhaya da nga laal point bu am solo. Mhm. parce que boo seetee fi mu nekk nii ñëpp ragal léegi kilifa yi ñëpp ragal kenn xamatul fooy waxe kenn xamatul fooy defe si néeg bi nga dëkk sax boo ki tëddee bala ngaa summeeku di nga xool tout les les quatre point ndax dafay ne samp nu fa dëgg dëgg loo xam ni mën na laa filmé c'est vrai parce que xam nga lu tax gis nga ñàkk sutura boobu nga wax noonu. dafa lawal lawal law ba ci biir kër yi parce que boo gisee sunu baay yi ak sunu maam yi tabarkalla macha allah amoon sutura ba yàlla dimbali leen ba kër yi di nga ci nekk ak sa ñeenti soxna ak say doom ne kenn du yëngatu ñëpp ay tegu ci yoon ñëpp ay yaru ñëpp ay jàng tubar fa kàll ñëpp réussir soxna yi doo dëgg kenn wax moroomum soxnaam lu ñaaw doo xam kan mooy jur kii ak ku jurul kii. te muy dëgg. ñëpp dañ naan koo gis ko koo ku traversé nga ni ko yaay. Mhm. loolu jeex na amatul. lu tax amatul. li ko indi nag moom laa lay wax. parce que li ko indi mooy ñàkk sutura googu moo ci law parce que tey su fekkente ni euh, sa moroomu yaay mi ngi ci biir kër gi ngay wujjale sa yaay. Mhm. ba tax doo ko ni tante doo ko ni yaay lu dul yow doo gis lu dul lu bon ci moom ak ñàkk sutura ci moom goo xam ni. Euh, toujours yaa ngi xawi suturaam parce que du sa yaay juru la wala kii du sa sœur bokku leen ndey ak bàyyi baay rek ngeen bokk moo tax danga war a xawi suturaam wala ilaa kii kat dama doon sëy moom sëyatuñu gis naa mu gën a am teraanga ay xa mbiram gën a yokk tax ma bëgg a xawi suturaam pour yàqal ko àddinaam wa ilaa kii sama soxna la woon mais yàlla dogalu na sëyatuñu mais mu dal ci koo xam ni macha allah ku borom borom teraanga la mu di ko téye téye nu rafet nga ñàkk ñànki boo tax nga di koy wax lu ñaaw ak di wëñu suturaam yooyu moo xew léegi te wax naa ko bër ci démb saa yoo joxanee nit di xawi suturaam boo defee nii sa loxo ñeenti baaraam yëpp ci yow lay del si war benn baaraam bi rek mooy dem si moom mais yow ñeenti yi xoolaatal sa bopp ndax boo joxoñee doomu adama di ko xas jàppal ni benn yoon nga ko xas waaye yow ñeenti yoon nga xas sa bopp mm-hmm. kon coach Moussa il faut ñu xoolaat suñu bopp. parce que mbir mi euh, ci éducation de base la. voilà te léegi éducation de base moo jeex. bu njëkk dañ daan jël ne bala ñu ko yóbbu école jàngal ko alxuraan. Mhm. yar ko ci jikko yar ko ci jom. wala ñu yar ko ci ngor wala ñu yóbbu ko catéchisme. wala ñu yóbbu catéchisme jàngal ko li nga xam ni moom la labbe di jàng. Mhm. parce que labbe yi ils sont très très polis. Mhm. boo leen dee xool parce que affaire bi nekkul ci. Euh, euh, euh, ci religion parce que boo xoolee tey léeg-léeg nga gis ne koo xam ne chrétien la mais day yaru ba yéem la mm-hmm. danga naan ba yàgg sax dangay mujj sax yow nga naan man daal neexul ba neexul mais chrétien yi ñoo yaru mais nag catéchisme mooy vivre en société tout en dund sa diine loolu la naka ngay dundee sa diine ci biir société bi la yàlla yóbbu loolu mooy catéchisme donc moo tax quelque part les catholiques ils ont cette bonne conduite xam nga asma yow da ngay aborder point yu am solo. dëgg la dama bëgg tey. bu <laughs> làkk tubaab. waaw damay damay bañ dugal ma fu xam ni ci benn caniveau boo xam ni. danaa fa bëgg a génn mu tëmm. <laughs> bisimilah jàmm. bisimilah jàmm la jàmm kese la nag waaw bu ma dugal ci lu xamul. dama ne catéchisme yii. waaw catholique yii. waaw oh. euh, catéchisme dañ lay jàngal kéem naka nga war a dundee sa diine. Oh. ci biir mboolo. te mboolo mooy askan. waaw moo tax nag ñu yeru lool. waaw seen toggaay baax lool. xam moo tax sutura foofu lay commencé. waaw xam nga xam nga roqee sutura si foofu lay mm-hmm. commencé. Mm-hmm. xam nga roqee Dieng euh, bu ma ànd ak moom ñu am lu ñu dox ma moom ci sutura. Mm-hmm. xam nga yàlla su neexoon yàlla bëccëg rek ay am. wallaay wallaay. lu tax mu créé guddi. sutura. Moussa lu tax mu lan moo tax yàlla créé guddi. sutura très bien su neexoon sunu borom roqee. guddi du am. bëccëg moo ñu am éternellement. mais li wax yàlla indi guddi. dafa bëgg sutura. xam nga mbaadoo la mi nga àgg ci nit romb la guddi muuru. nga naa kii du roqaya. ñàkk sutura dina baadu faa la tàmbalee. moo roqaya foo demoon. moo kii du aadama. loolu mbaadoo la ko pees passé. am na ñu xam ni. guddi leen mën a jóg. wallaay waaye bisimilah jàmm. mi ngi dee. lii baa jàmm la. am ndox. am na ñoo xam ne dox guddi bari na. mais bien sûr <laughs> mais guddi dafa yàlla daf ko moo tax am na ñoo xam ni mais guddi la ñuy wut dépense. dëgg la de. te ci sutura lañ koy bëgg mu ko leen xamal dara. dëgg la borom njaboot lañu. Mhm. am na ñoo xam ni maaman yi leen di ñaanal. Mhm. mais guddi la ñuy dem ci ñoom. te muy dëgg on se dit la vérité. am na ñoo xam ni am nañu maladie bu ne ci ñoom mais guddi lañ koy faj. Mhm. am na ñoo xam ni. fa ñuy jële ji seen secret guddi lañ ko fay jële ji kon guddi am na borom tey nag kuy génn guddi sax wala di dox guddi yow yaa ngi suturaal sa bopp waaw léegi nag boo dee suturaal sa bopp nit gis la ba bëgg a wàññi sa sutura nag nga ne ko arrêté tax mu naa ndax kii du kot su Moussa ay waay kot su Moussa ngi nii waay namoon naa la. léeg-léeg papa nga gis sax ku dem restaurant da lay xàmmee parce que peut nit public nga xamul ki nga toggal kan la mu ne la mm-hmm. ayu kii du asma moom la wala du moom. c'est vrai que c'est pas méchant. mais peut-être que foo ci environnement boobu. kon nag yow sama sama ci bi moom nga luqi xam nga dugg ci restaurant. <laughs> par exemple la nuit nga ñëw ci benn restaurant wala benn café. Mm-hmm. fekk ay kilifa toog à table di naan seen café waxtaan man may ab géwël. mais géwal dafa war a xam boppam lu ma bëgg bëgg a wayaan ak lu ma bëgg a bëgg wax lu baax du ma moment du endroit c'est pas le moment du ma la sax xool yàlla xam na ne duma la sax xool parce que la la fa indi ci personnalité moom ma fa indi te bi ma fi ñëw xaw ma ne danaa la fekk donc naa continuer dox suma activité damay dox suma activité naan sama café na ma ko war a naane na la ma war a incarné génn taal sama oto dem sama yoon barki yàlla su ëllëgee su ma dajawaatee goo feneen jox la loxo soo ma waxul sax ni ma gisoon naa la. wallahi du ma la ko wax barke Alaaji Maalik mhm. dama la wax sax damay mel ni ko dama lay effacé. dafa am lu ma mas a dal. ci Serigne Mansour bu Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum. ñu bari xamuñu ko il est très effacé. Mhm. Serigne Mansour mooy taawu Al Maktoum. Mhm. mooy taawu Moustarchidine wala Moustarchidane sëñ sëñ Moustapha. mooy mooy magam. ma nga nekk Paris. Paris na fa moom Paris la dëkk. macha allah moom parisien la. waaye nag sénégalais la ku baax la. ku yiw la. dama dox ba dajeeg moom ci benn supermarché man nuyonteeg moom mi ngi nekk en blouson. ndeysaan ma daal di ñëw rek daanu daanu tijaan <laughs> nuyu ko rek ne ko bu ñaanal ma. ma Pape Malick bul defati loolu. fii kenn du fi ñaan. Oh. parce que fii supermarché li Pape Malick fii bu ma la tàllalee di la ñaanal dina am ñu mu neex am ñu mu naqari. te gisoo ñu fi nekk ñëpp ñëpp bokku na yam te xamu xamoo sax ñu fi nekk nan la mun na fii du ñaanu kay. Eh. la prochaine fois bu ko def ma ne ko si wax nga dëgg dootuma ko defati. lépp ak bërëb mu xool jàngat boobu ma xam ne kii ci sutur la waxee ak man. te wax na dëgg foofu du ñaanukaay. parce que newuñu sa jàkka ja. newuñu gaa yi la. dajewuñu Tiwaawan. am supermarché naan daje. ma bëgg koo dëkk ay loxo naan ko ñaanal ma. di ko bëgg a moo tax gis nga roq il faut ñu delloo si sutura yàlla ji fi nekkoon ba tey mi ngi fi. nit ñu baax ñi fi nekkoon ba tey jóguñu fi fa tabaarakallaahu sutura suñu borom moo tax mu jël jigéen def ko magasin mm-hmm. magasin suñu borom boo ko déggee mooy jigéen man nag li ma gën a frappé gën maa naqari te naqari ma lool mm-hmm. danaa dal ci kaw góor ñi parce que ah. sont les responsables parce que aussi góor dafa war a am sutura ci jigéen mm-hmm. jox ko gëddaam léegi réseaux sociaux yi papa. waaw la jël di ko defantee. loolu mais foofu loolu laa bëgg foofu laa jëm roq ya parce que xam nga réseaux sociaux yi boo seetloo mooy xeexukaay yi li ma gën a naqari nag mooy TikTok man fi man man man publicité wu ma waaye par exemple nga jël benn photo Sëñ la wane ko ci TikTok bi léegi daal def benn xadaratul juma wane maam Alaaji Malik wala nga war a maam Cheikh Ahmadou Bamba daal di teg benn jawartu kamal benn jawartu mm-hmm. jékki-jékki ñu déet waaye nga jékki-jékki gis benn xale bu jigéen bu ne fu teet sumeeku. ca wet nu kii di toppante da ngay toppante loolu. Mhm. non da ngay jël xoolal da nga koy trier da ngay yor sa téléphone di trier yam ci mbay doon da muy way. Mhm. walla nga yam ci. Euh, dut jo wala nga yam ci waykatu ndar ndar bu mhm. daan woyal Cheikh Ahmadou Bamba wala nga yam ci dut kenn mbay wala nga yam ci Pape si mbay wala kenn mu way lu neex a neex. mbay ga waaw waaw jàmm la. <laughs> bismillah jàmm dëggal dëggal li dëggal. loolu bi sopp la rek. dëggal li fii la fii la fii la kuréel yu bàyyi mu koy dee. ah. bu ma koy wax ci tubaab naan croustillant. ay waay bu lakk waay ay waay tey laa dugg. man delloo ko ko dugg na ah conscient. conscient loolu mi ngi firi ni fii la mburu mi xoyom xoyom. moo tax gis nga gis nga technicien yi fii sax dama koy wax. da ngay xool kii fi fi mu nu génne. boo xam rasta yi du ah, yàlla ci def sutura man tëboon naa. ba déet yàlla ma defal sutura. ba ma sànni sama marakis. baalu talbat ba la. waaw talbat ba la. waaw talbat ba parce que dañ koo dëj. papa nee na dëj ma ak bëgg nga ca suuf. moo war naroon a yëkkati waaye yàlla tuddaan dafa yàlla. ayca Rokhaya yàlla waxtaan bi yaatu na suñu papa dafa am eh, feelingu boppam. dañ ko koy nangul. macha allah moo tax nag nit ku nekk am na jat bu ñu ko war a jatee ngir rekk mu dégg. Eh, lii bokk na ci eh, l'importance de sutura dafa war a am papa góor ñi ñoo ngi ñuy yàq dëgg la waaye ñun jigéen ñi ci suñu biir li ñuy yàqante rëy na dee. waaw asma xam nga wax naa la léegi ne dinaa wax góor ñi mais jigéen ñi. ñoom ñooy weranteeg seen biir parce que boo xoolee tey tontine yi ak ndaje yi nga xam ni mooy seen tuur yooyu ñuy faf di daje bay àllarbaat yu demee ni ki noonu ak tour fen di mois yi euh, fa la weerante ba ak ñàkk sutura ga gën a tulle mel ni tulleeg màlle dëgg la wala marché yi ci naka papa marché nga xëy yor sa pañe yor sa mille cinq cent ki yor pañeem yor cinq cent francs nga ñëw taxaw moom ci ban taabal di yokkam di ko di yërndu pañeem ba xam yaba la jënd wala jaxatu ba pare loolu ci boo génnee di ko wax ay waay diw tey marché dama koo mm-hmm. ay waay pañeem ba ndeysaan genn géej laa gis seen ndeysaan ak benn pataas loolu du sutura mm-hmm. sunu borom moo ko sédde benn géej ak benn pataas yow mu sédde la jënd coof ak dëgg-dëgg pomme de terre ak la ca war a ànd nit sunu borom mooy séddale boo maandoo da ngay suturaal sa moroomu doomu adama très bien boo suturaalee sa moroomu doomu adama yàlla suturaal la te yàlla ku mu suturaal doo fanaan biti très bien te tubaar fakkal la macha allah sutura si yàlla dafa yaatu mm. li nga wax dëgg la demee jamono ji ñu toll nii asma ak technologie bi dañoo nekk ci air boo xamante ne air wanewu la eeru defante la kenn ku ci nekk yaa ngi xëcc loo amul même bu fekkente ne am nga sax yaa ngi ciy teg leneen loo xamante ne amoo defante boobu noonu muy am ant suñu biir defante boobu di am ci yi ci bërëbu liggéeykaay parce que kenn ku ci nekk yaa ngi bëgg a tromper sa bopp yaa ngi bëgg a voyer moi yaa ngi bëgg a wanewu loo xamante ne peut-être malo ko wala yaa ngi bëgg a mottaliku est-ce que tamit rek loolu mooy nekk problème bi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel actuellement suñu génération par rapport ak démb moom la ñuy jànkonteel Rokhaya parce que Rokhaya dama lay jox rek benn anecdote supposons par exemple nga lekk un milliardaire xaalis dafa war a am sutura boo koy wàññi sax doo nooy ndax sutura boo ko dee wàññi sax waroo nooy ndax sutura. ah papa. waaye doo ma bàyyi. li lan la la. kii noonu lay def. mani yow de xam nga ne boo yoree ay liyaa su xaalis côté bu nekk dañ ko xool ndax dafay ne ngi lay gis. Ah, ndax doo bëgg ku la ci ñaan. très bien euh. mais boo paree. Ah du tee nga génn ci. asma tey nga génn ci mais li ma laaj ci réseau ci loolu laay waxtaan nii. Uh-huh. da ngay dugg ci internet bi gis ku toog génn xaalisam di ko wàññi. teg xaalis xaalis bu wër la wala nga nekk kilifa dem incarné genre ay anniversaire wala yu deme ni ki noonu pour. maanaam voilà pour to wane sa tolluwaay <laughs> ak wane di bàkku ak wane ni ni laa toll <laughs> te sunu borom. Uh-huh. bëggul kuy bàkku. très bëggul kuy tiitaru. très bien bëggul koy wanewu. très bien gis nga internet bii. Ah. yii nga xam ne moo ci xew. toog ci sa biir néeg parce que lu puudaru defaru ba jekk jékki-jékki xool sa bopp ba mu doy la kenn fa nekk yow yow dong ak yàlla nga jékki-jékki jël sa caméra filmer sa bopp ba mel na nga war a mel. envoyé ko sa wujju wala nga envoyé ko sa borom kër. sa wujju daj ci. jam daj ci. nga wax ca loo xamante ni bii nii lu ñàkk sutura la pour defee ni yow yaa ngi koy offensé wala yaa ngi koy naqaral fekk yow yaa ngi rey sa bopp te yëguloo ko parce que seules les écritures restent parce que loolu nga xam ni moom nga fi wax muy ay ay tojaange du fi jóge ilaa yomal xiyaamati très bien les écritures restent te da dem ba àdduna dem ba ba nga nekk mag ah. yor bi jaaw hmm. am ay sët ak ay sëtaat hmm. ñu waar la très bien Aïcha mi ngi noonu Rokhaya Dieng réseaux sociaux kon maanaam favoriser na gën na yokk ñàkkum sutura gi papa eh, évoqué na lu am solo sànq mu di dañ kumpa gi mi ngi tàmbali ba ci eh, table marché ba ba ci suñu biir néeg yi est-ce que du loolu moo moo nekk di pervertir suñu jeunesse ba kenn ku ci nekk na nga am rek am boobu noonu jaral lu ne moyen bu ne ba tax ne na wàllum simeeku boobu da nga ko ciy gis wala li ni mel et aussi droit de l'homme benn côté moom lay wax à chaque fois foofu ñu mën ko appliquer ak suñu réalité socioculturelle mhm. mooy que mën naa am sama liberté d'expression mais dafa am fu mu yem ndaxte nag tubaab sax moom mi wax liberté d'expression nee na ta liberté se termine là où celle des autres commence mhm. kon mën na am bu fekkee ni loolu yëpp dañ ko boole càmbar rek équilibre bu ci amee ñu ñëpp dinañ ànd ak yer ak teggin muy man ak sama morooma ndax kenn jubul dañuy jubal dimbalante ci suñuy biir te loolu mooy sutura roxee jeen xam naa lu duuf ci nag li xajul ci cin li mais dama leen di bàyyi ngeen tëj waaw Asma ni ñu koy waxee dafa am solo lii bi ñu koy wax fii ba gannaaw suba duñ ci jóg Louisa ndax saa su nekk ñu gis dañu jombal ci euh, internet bi man ful la man dama cee bëgg Asma boo am waree amee loo réglé ak Asma nga dem ba ko li nga koy wax wala nga woo ko téléphone wax ko li nga koy wax mais pas ci whatsapp yeeg ci groupe yi defante yooyu nañ ko bàyyi parce que moom mooy indi yenn problème yi ñuy dugg si sa di ko lijjanti ku sëyam tas ñu étalé ko alors que mel ne ñam mel ne sëy bi ñëpp ci duggoon alors